mangi ñew taxawayu Dom, taxawaayu euh, doom ah taxawaayu xarit euh, Talibé taalibe euh, ci occasion bi nga xamni moy pose de la première pierre de la mosquée ici à Keur Massar unité unité 12. voilà man initiative bi ma gis fay lo xamee ni dafa dafa rafet dafa maanaam. Euh, boo xoolee liggéey néegu yàlla ah, dëgg la góor gi bii du bu njëkk bi mu def waaye bii nag dafa symbolique ndaxte liggéey yàlla boo xamee ne yaa ngi ko sumoon sa biir dund nga wan ginnaaw euh, àdduna say njaboot ñëw taxaw ni dañ koy eggale ndax loolu moo doon su bëgg-bëgg loolu man nag njaboot bi boole ma si ni ma daal comme ingénieur nga comme sunu kóllëre nga dana bëggoon nga ñëw nga jàppale nu ci liggéey bi

man may maître d'œuvre bi deug la am entrepreneur yu ñew liggéey ko waye nak man may superviser bi famille bi m'a taxawal aussi wa dëkk bi ñi nga xamé ñoom ji waaw na sur surface un peu plus de 300 mètres carrés voilà dina euh, salle de prière pour hommes bo salle de prière bobu autour de 160 mètres carrés Moi, une salle de prière pour Gourni. ñi mbéygal am salle de prière pour Djigeni. am salle de classe pour xam ne fa jangalé alcorane xalé yi béygal am aussi morgue pour manam suñu way dawlo yi béygal am ay toilettes aussi Le lépp de clôturer ko mu nek vraiment du jo xamé ni machallah dina am minaret aussi bo xam dina 30 mètres donc dañuy ñaan yàlla daal vraiment rafetlu naa trop man ni ma ci bokkee dañuy ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla yëgale ak jàmm ak salaam ba ñu mën ci julli ci ay diir bu gàtt incha allah. am na ay réaménagement yu nu war a def parce que terrain bi dafa am lu ci tali bi jël loo xamee ni ci terrain bi la bokkoon donc fi ñu toll nii ñoo ngi waxtaan ak SNHLM pour ñu xool nan la ñuy réaménager waat terrain bi pour dolli nu dara ci ginnaaw nga xam ni mbedd boo fa nekk.